بسم الإله النازل قرآن قد نزل بالمبتداء والجر له نزولا بسم الإله النازل قرآن قد نزل بالمبتداء والجر bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki ànd ak ñun ci seen télévision Mafaatihul Bichri TV ñi leen di nuyu di leen ziar di leen balaax di leen balaax tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom moo di euh, campagne électorale bi xam ngeen ne euh, ba ñu euh, génnee ba léegi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy di cinq candidats yi moo xam Issa Sall ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko Macky Sall Madické ñaa ak ki nga xamante mooy Idrissa Seck ñi ngi wër li nga xamante moom moo di euh, Sénégal euh, tey nag li ñuy euh, bës fas yéene waxtaane moom mooy seen campagne bi so far naka la ko Sénégalais yi gisee est-ce que promesse yi ñuy dégg déjà est-ce que dégg daawuñ ko dégg boobaa ak léegi ak président yi nga xamante ñoo fi jotoon na jaar loolu rek lañ bëgg résumer xool Sénégalais yi nekk ci biir diaspora bi ñoom naka lañu ko gisee ci biir loolu man bàcc ak sama équipe ànd ak Bichri TV ñu ñëw ci Sénégal yi fii ci 116 waxtaan ci ak ñoom surtout li nga xamante ni moom mooy côté diaspora bi loolu day day nekk lu nga xamante ni lu amam solo la sama team tey fii ci 116 fas yéene ànd ak yenn waxtaanee cinq candidatures yi nga xamante ni ñoom ñooy génn di wër euh, Sénégal ñu xool ñoom naka euh, la ko Sénégal yi nekkee fii ci diaspora bi. di gisee ma faa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu wér jàmm. maa ngi sant yàlla moo faal tey ñuy laaj cinq candidats yi nga xamante ni ñu ngi déroulé actuellement seen programme yow déjà en tant que immigré nekk fii ci New York loolu naka nga ko gisee. waaw ah, ni ma ko gisee mooy euh, comme ni ko Sénégal yëpp gisee man jàpp naa ne ku ci nekk ci ñoom war naa mën a nekk président Sénégal parce que wale nga ko wax nga ko te jëf nga ko tamit xam nga li war a mën a tax ñu war laa mën a voté. waaw mais li ma ciy doole rek mooy juste ku ci nekk ci ñoom ànd ak dal tey te xam ne yàlla mooy fale du keneen ku nekk sa bëgg-bëgg nag. mais yàllaay dogal te bañ te ñu bañ a utiliser population bi ñuy ñuy reyante ci mbedd bi ku ci nekk rek ki ànd ak yow da koy wax bu bés baa mu yor kartam dem voter la ci nank ci jàmm ak salaam ñibbi këram parce que Sénégal réew démocratie la te weesu nañu fu ñuy xuloo ak di xeex waaw. ci côté diaspora bi ñoom yéen euh, ñu ngi doxal seen programme yéen waa diaspora bi la ngeen di xaar. waa diaspora bi daal li ñuy xaar mooy ku ñu ku ñu ku ñu dimbali ñu nekk ci ci àll bi bañ ba bis bu ñuy dellu Sénégal ñoo gis changement bu mag ba ñu war a ñu mën a delluwaat Sénégal bàyyi bàyyi immigré wala leneen lu ñu mën di def ndax loolu dinañu neex trop moo tax ñu jóge suñu dëkk ñëw fii bu ñu amee kuñ kuñu ku ñu jàppale ba suñu réew dem ca kanam ñu bañatee génn loolu loolu kooku la ñuy wër bu dee mag bu dee waaw ku mu ci mën a doon daal ñu ànd ak yow merci beaucoup. merci ok jërëjëf. Euh, sëñ Lamine ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi ziar ñu ngi ziar bu wóor. Mm-hmm. ngeen nekk ay doomu sénégalais nekk fii ci New York naka ngeen gisee cinq candidats yi nga xamante ne actuellement ñu ngi déroulé seen campagne. waaw fi mu toll nii xanaa ñu ngi leen di déglu rek parce que ñu ngi déglu ku nekk yaa ngi joxe yaa ngi yaa ngi teg sa programme ñu ngi xool daal ñu ngi leen di xool ñoom ñëpp benn par benn di leen suivre ndànk ndànk daal. waaw fi mu toll nii daal si suivre lañ toll daal ñu ngi xool. waaw parce que gars yi lu ñu lay wax tey ak lu ñuy def suba ça fait mhm. waaw moo tax daal ñu ngi leen suivre ñoom ñëpp benn par benn daal di xool ndànk-ndànk rek waaw ñoom daal actuellement ñi ngi def seen ay dige waaw ñi ngi def seen ay dige ñi ngi def seen feem ñoom daal xam ñoom mhm. mhm. ñu ñu ngi a dem ah, manko bañ a a parce que ñu ñëpp dafa am lu ñuy xeex dafa am lu ñu bëgg changement la ñu bëgg moo ñëpp foog ñu jógandoo mànkoo dem ñu ñëpp voté ku nekk voté ki nga bëgg ñu bañ a xuloo bañ a xeex bañ a def dara ku nekk voté pare ñibbi dem sa ko toog xaar résultat yi génn waaw loolu daal la ñuy xaar si sénégalais yi. ci côté diaspora bi. diaspora ñëpp fu mu toll nii changement la ñu waaw loolu moo nekk suñu bopp loolu la xalaat moom mooy mooy mooy suñu mbébét daal mm-hmm. waaw. ñu ngi koy xaar daal ñu ko yaakaar nañ ci lu yaakaar nañ ah te yaakaar nañ dina am waaw yaakaar nañ ne changement dina waaw. jaajëf Lamine jaajëf xewal. El Hadj Gaye champion du monde bu karaté El ñu lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bàcc. naka yitte mm. yi. sant rek alhamdulilah RST euh, ñuy laajte ñu waxtaanee li nga xamante mooy cinq candidats yi nga xamante fan fi ñu toll nii ñoo génn ñu ngi wër nag Sénégal di li nga xamante mooy seen campagne électorale naka ko ko gisee so euh, bon di nuyu ñëpp seen ak seen di leen wax ne euh, fi ñu toll nii si ci campagne présidentielle lañ nekk mais Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne yaakaar naa ne jafewul pour nekk président. donc ñi nga xamante ne ñoo nekk cinquante candidats yi euh, na na bi xool ñi nga xamante ne ñoom dañu am confiance ne war nañ war a mën a diriger en ce moment là ñu voté wala amul amul xuloo amul jarul xuloo jarul ñaawo daal. Mm-hmm. parce que Sénégal moom Sénégal lu ñëpp la koo fa fal euh, président Sénégal lañ koy wa donc euh, bëri na ñu fiy laaj euh, ñu fiy laaj président président boo leen ko joxee tamit euh, liñ liñ yaakaaroo ci woon ci ñoom defuñ ko donc ñu fal fa keneen rek. Mm-hmm. donc yaakaar naa ne Sénégal war na war a mun a am ku mun a diriger dëkk bi. Mm-hmm. kooku du jafe. est-ce que sénégalais aussi nañ génn massivement pour voter yi. Ah, je pense oui je pense parce que ici à New York yaakaar naa sénégalais yi fi nekk yëpp lu leen ñoral lu leen yitteel mooy Sénégal. Mm-hmm. donc ñi fi nekk ñëpp dañuy xëy suba ngoon jot di xam nga di liggéey pour rek euh, dimbali ñi nekk Sénégal mm-hmm. donc euh, président nekk na loo xamante ne lu am solo ci dëkk la donc kuñ fay teel euh, teg rek. Mm-hmm. day nekk koo xamante ne wóolu nañ ko donc yaakaar naa ne yitte yi bëri na fii mais dinañ bàyyi dinañ bàyyi dara pour def dara daal parce que lii lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu soxal la daal. kuy nekk président suñu dëkk lu ñuy ñoral la parce que déjà sacrifice yu ñuy def fii yëpp à l'étranger pour rek suñu dëkk moo tax donc mënuñoo am président bu bu ñu dimbaliwul ci loolu. te ñu ñu war ko mun a réaliser donc il faut ñu am koo xamante ne ni yaakaar nañ ne buñ ko fa tegee liñ bëgg ci Sénégal. war nañ ko war a mën a am donc il faut ñu def sacrifice pour voter. si côté diaspora bi. ci côté diaspora bi yàlla def na man damay voyager lu bari donc euh, sénégalais yi ma gis yi ma tase yëpp déjà daaw man dem naa compétition yu bëri ci àdduna bi dem naa presque ay dix-huit pays yoo xamante ne ni fi ma dem rek dem fekk naa fay sénégalais waxtaan ak ñoom xool ci ci ci ci ñu nekk donc koo ci waxal rek moom li ko ñor mooy liggéey. pour taxawu suñu Sénégal donc yaakaar naa ne au niveau diaspora man aw ma ci xel bu ñaar ne nit ñi dañ gën a voté parce que ñor na leen daal Sénégal ñor na leen donc euh, yitte yi bëri na mais dañ ko bàyyi pour dem voté. merci beaucoup merci bien merci ñoo ngi leen di fay. kilifa diine ñuy waxtaanee cinq candidats yi nga xamante ni ñu ngi wër Sénégal actuellement di def seen campagne électorale naka nga ko gisee so far. waaw ni ma ko gisee mooy damaa kontaan ci cinq candidats yi nga xam yëpp ñu ngi wut réewum Sénégal parce que bi ñu tàmbalee ba tey seet naa déglu nañu ndigalal sëriñ si ak ndigalal waa Sénégal gépp ba tax ni ci jàmm laa gis ñu commencé ko ba ñu ko tàmbalee ba tey ñu ngi wut jàmm di dem jàmm di wut jàmm ci réew ma kon ñooñu man kontaan naa ci ñoom ci ni ñu tàmbalee seenu campagne. lan la ñuy xaar aussi ci côté diaspora bi. waaw diaspora bi nag de toute façon seen dañoo am présence bu rëy ci Sénégal comme ni ñu ko amee ci fii kon li ñuy xaar ci diaspora bi mooy ñu gën a jàppale diaspora bi ba ba lenn lu ne ñu am ay projets yoo xam ne yu gën a baax ndax projet yi am na waaye yu gën a baax yii ñu nekk mu dolluwaat ci projet yi ba diaspora yi kenn ku ne taxaw taxawaay bu rafet fii ci réew mi aussi ñoom waa diaspora it di taxaw ci Sénégal comme ni seen ci diglee jàmm diaspora be di ko diglee jàmm te seen xalaat yu nga xam ne du xalaat bi gën ci Sénégal loolu laa laa xalaat ni diaspora yi ñu gën leen jàppale ci banques yi ñu nekk ci projet yeeg yëpp ñu gën cee jàppale pour diaspora ci ak ci monde bi yëpp sax ci ak ci Sénégal yëpp fu Sénégal la nekk. est-ce que foog ne ñoom li ñu wax yëpp dañ ko def promesse yi bëri na de. waaw wax nga def moom yàllaa ko gën ci yàlla la gën a baax mais bari na ci ñoo xam ne ñii bu ñu boo defee ñu gis. ñu yaakaar ne boo defaatee ñu gis ndax ay politiciens lañu. Mhm. te politiciens aussi. ndegam Serigne sax day wax ba pare ni damaa pa lii laa bëggoon a def tey doo ko def waxuma laa kuy politique. Mhm. wax def ko moom yàlla rek ko man mhm. mais am na ñu yaakaar ci ni ñoom ñëpp am nañu yéenee def dara. Mhm. loolu laa am ci ñoom yaakaar. jërëjëf. jërë ngeen jëf ñoo ngi leen sant leen gërëm. maa ngi leen di fay. ngeen nekk ay doomu sénégalais nekk fii ci New York ndax ngeen gisee campagne électorale bi. campagne électorale bi dañ ko gisee mooy kontaan nañ ci ndax xam naa ne ñoom ñi jóg ñëpp gun daal liñ di gun gis nañ jàmm gis salaam gisagun daal aw ay wala lu bon lu fa am daal. Mm. te loolu daal buñ ko continuer defe naa ne. ka war a gañe dana gañe ka war perte perte quoi moom amul lenn loo xam ne daal lu ñaaw war na cee mën a am ndax ñun ñëpp ay sénégalais lan quoi te ñun ñi nekk ñii ci àll bi ñun ñoo gën a sonn ndax li ko def mooy ñu ngi bàyyi suñu njaboot yi senegal te ñu nekk fa tey ji ay xale nga laa bàyyi ay lépp laa bàyyi bon am na noo xam ne bu nu demee rek man danaa moom tiit bon nag ñoom ñu yore affaire yu ñoom cinq candidats yi nan góor góorlu te def defin wu rafet wax waxin wu rafet jëf jëfin wu rafet quoi xastanteeg saagaante moom yooyu moom nit ñi dañ koo dépassé daal bon nag moom nan góorgóorlu rek ba def loolu daal dana gën a rafet daal. mais Cheikh ci côté diaspora bi aussi lan lan ñuy xaar ci ñoom. waa diaspora bi de xam naa ne am na ci ñoo xam ne moom ñu ma dégg ñu ñuy waxee xañ na ñoom buñ moom dana gën a jàppale gars yi ci àll bi bu baax a baax am na ci ñoo xam ne nag dégguma ñu wax ci tudduñu ci waxuñu ci daal waaye am na ci ñoo xam ne moom ni ma déggee ñuy waxee moom mën naa nekk ñoom xañ na buñ ko gañe moom réew ma danañ mën a jàppale gars yi ci àll bi bu baax a baax a baax a baax xaw ma nag waaw waaw. baax na jërëjëf baax na jërëjëf yal na yàlla dool dolli jàmm sàmm ñu sàmmal ñu suñ njaboot ya fa nekk sàmmal ñu booleem jullit ci kàttanu suñ borom te nit ñi bay werante week saagaante yeeg wax yu ñaaw yi daal yooyu daal amul benn important quoi li am important daal kenn ku ne yaa ngi ak saw carte daasal fanaanal ka nga nga ànd ak moom dem sànnil kow carte bay bañ cee saaga bañ cee wax lu bon kenn bañ la cee xam ci lu bon lu rafet daal moo am njëriñ ñun daal ay doomi taalu bi leen ay bawal bawal lan ñun xamuñu lu bon lu baax rek lañ xam baax na jërëjëf. jërëjëf ñu ñu lay laaj naka nga gisee cinq candidats yi nga xamante ni actuellement ñu ngi wër biir Sénégal di def li nga xamante moom seen ci ay campagne électorale bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum sëñ Bàcci Massamba ñoo ngi lay nuyu di la delloo nuyoo bi di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu laaj nga ma laaj bu am solo ndaxte loo ci gis rek ci activités yi fa mu toll la te dañoo toll ci élection yi diggante ay diir ak i bés rek ñu yegg si ñuy ñaan yàlla nag yàlla sotti ñu si ndox mu sedd guy ndax ñun juróomi candidat yi nga wax yépp ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk bay ñoom ñoo bokk Sénégal bi te Sénégal benn bopp la mënuñ ko xarñaar kon kenn ku nekk si surtout ñun ñi nga xam ne ñoo ngi fii si diaspora bi nga gis bu élection amoo fii kenn ku nekk da ngay jóg nga joxe sa kart boo ñëwaatee ñëw sa kër toog di xaar sa résultat ñu defee ko noonu rek ci jàmm ak salaam kenn ku nekk ka nga yaakaar nga dem mën na laa yoreel réew mi te yaakaar rek lañ ci am nga dem nga wooteel ko ci jàmm ak salaam ñu def lépp ci jàmm ak salaam te xam ne lépp ñun noo ko bokk lépp suñu allal la man daal sama xam-xam bu gàtt loolu laa ci xam ku ci yàlla dimbal ku ci yàlla ne yow yaa ciy falu amul keneen ku mun a tax ba kenn door falu ñu jël ki yàlla falu ñu jiital ko ah ñu ànd liggéey man de loolu laa ci xam ma sàmba ci côté diaspora bi lan la ñuy xaaj ñoom ndax diaspora bi jafe-jafe yi problème na loolu. jasporaa bi waaw jasporaa bi question crise la crise bi kiris mondiale la adduna bépp la waaye li ñu war a gën a gën a gën a gën a gën a focus mooy di jéem di def dara Sénégal di investir fa ñu dëkk. bu dee ak ku mun a nekk nag ku nekk ci diaspora parce que fii du Sénégal yi rek ñoo fi nekk adduna bi yëpp ñoo fi nekk malien africain yeeg yëpp ngi fi waaye ngay jéem a investir dara loo xam ne ne ëllëg réew ma soo demee lu bon bon bon da nga ci mun a toog sax nga mun a xam ne lii boo situl dara da nga mën a jafandu à part ni gouvernement bi war nañoo reconnaître ni reconnaître ni suñu baax a baax te xam ne am nañ ay opportunité ndax am nañ opportunité yu nekk fii ci diaspora ku ne xam na ne fii lépp a ngi fi bu ci question développement lépp a ngi fi ay usine ay industrie lu ne mën na fi ay business lu ne mën na fi am mën na fay jóge jële waaye benn loxo du tàcc il faut ñu am dimbal kon nag yal nañu yàlla jàppale rek ba ñu am ku ñu mën a dimbale bu baax a baax ci diaspora gars yi nag jàmbaar lañ ndax Sénégal ku ko gis xam na ne immigré yi ñoo ko yore ñetti kër yu ne un deux trois bu ne immigré la beneen bi moom mooy doon fonctionnaire loolu ku ne xam na ko Sénégal am na dëkk yoo xam ne sax fukk damay lim juróom bi dëkk fu mel ni Touba ñoom ay luga ñoom ay fukki kër ngay lépp ma immigré benn léegi koo xam ne ne fonctionnaire di ko yore kon nag loolu ndimbal li yàlla la waa metti na nag waaye moo gënoon ni ñu toog senegal te duñ mun a def dara te tane wuñ ñu nekk Sénégal ëppale wuñ leen doole ëppale wuñ leen dara yàlla moo tudd ñu ñëw fii kon nañ ko sante yàlla di wax alhamdulilah. salaamaaleykum jërëjëf. kon nag ñoo ngi sant Bichri TV. Mhm. ah te ànd ak seen TV. te suñu xarit. suñu kóllëre ma sàmba yore ko yor bu rafet a ah, di nuyu en passage bàyyi góor a ñoom ak ñëpp ñëpp nuyu nañ leen jàmm ak xéewal xanaa li ñu mujjee tëjal mooy jërëjëfa sëriñ Touba tey sëriñ Touba ëskay borom Touba borom Touba amul morom baal na ñëpp ak na ñëpp baal ak mbokk yi comme ni ngeen ko xamee euh, fii ci ci euh, télévision bi Bichri TV la télévision islamique au service de Khadim Rassoul ñëwoon 116 fekke fii doomu Sénégalais yi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy di campagne électorale bi ubbi waaye itam ku nekk ci ñoom wax na li nga xamante ñoom lañ xaar ci candidature yi kon yooyu di euh, di xaar ci le 24 février bi ñu jëm incha allah rabbi lépp lu nga xamante rek information la te Sénégalais yi war ci jot leen dem fekk leen fi nga xamante fa la ñu nekk bàcci la woon. public reportage fii ci 116 euh, di leen euh, sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm wa axiru daxwaana ani alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu